arbitre bi ngi waaj a sifflé ba tey cent kilos bi ñu ngi noonu ci cent kilos bi ndaysaan ordinateur Sénégal Gambie ceinture bleu Sénégal rouge ñaari xale yaa ngi noonu di léewtoo Sénégal ak Gambie mbokk yi Sénégal am na ñaar ñett ci kaw Gambie ndaysaan 100 kilos baa ngi nii ñu gën ko xam ci ordinateur moo ngemboo ngemb Lagos bi ceinture rouge Gambie ngemboo ngemb Lagos bi ceinture bleu ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan neuvième édition ndaysaan tournoi de lutte ndaysaan ñu ngi noonu ñaari xale yi ndaysaan ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñoom ñaar jàppante ne waat nañ dara xewagul ordinateur ndaysaan Sénégal Gambie bleu ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan arbitre bi àtte na kaay leen ci diggi géew bi mu leer ndaysaan ñu invité suñu réew dóor leen dóor yi métti bàyyi leen ngeen ñibbi <laughs> loolu mooy teranga Sénégal teranga bu Gambie ak ndeysaan ñu ngi noonu jàpp nañ ko jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ordinateur jàpp na ndeysaan jàpp na jàpp na temps bi sifle waat na Sénégal Modou Faye ngi dox ci kawam na noonu jàpp na jàpp na ndeysaan ñu noonu Sénégal gagné ndeysaan